yàgg na enseignants yi di ko def mais mu am ay at yoo xam ne gouvernement du Sénégal ministère de l'éducation nationale ànd ci ak enseignants yi pour organiser ko ren nag mu nekk édition bu spéciale ndax xëy na daan nañ ko def waaye daan na xaw a décalé ak juróomi fan ci weeru octobre monsieur le ministre jëloon daaw waxtu bi engagement que bu sobee yàlla ren dinañ ko def ci at bi nga xam ci app bi nga xam ni moom la ko àdduna bi yëpp di def muy sargal jàngalkat yi enseignants yi mu toll tomboog bés bi tey juróomi fan ci weeru octobre kon boog ñu jàpp ci thème bu am solo ndax àdduna bi dafa am lu muy dunde ci mbas mi muy lu bees ci xarnu bi ñu toll jàpp nañ ne feebar bi fi am di mbas mi ah soppi na doxalin yëpp rawatina ci wàllu éducation moo tax ñu nekkoon kon nañu waxtaanee nan la jàngalekat yi di nekkee ci biir relance su secteur de l'éducation gannaaw pandémie bi nga xam ni mbas mi nga xam ni ñu ngi koy dund. monsieur le ministre ah, fàttali na ko léegi ren mu am ci ay jéego yoo xam ni ay waxtaan thématique yu ñu ci def balaa bés bii nga xam ni dafa dëppoog sottante xalaat ci loolu mais dëppoog aussi sargal jàngalekat yi nga xam ne nii. etat du Sénégal nation sénégalaise am reconnaissance ci ñom jox leen sen sen sen distinction kon bok ci sama tour ak tour sama ministre yi sama collègue ministre yi ñi ngi jangale kat yi nga xamni ni sargal nañ leen tay ndax état du Sénégal delloo na leen njukkal ndax sen taxaway ñi dembu ñi tay aussi gannaaw ñi nga xamni dem nañ retraite ren nak bés bi ñu tudde ko ko xamni ni mënu ñu wax éducation nationale du Sénégal té kën tudd moy monsieur le ministre André Sonko bi tok fi monsieur le ministre ci sama tour ak turu sama collègue yépp ci turu gouvernement du Sénégal ñu ngi lay féliciter ndax choix bi nga xamni comité bi def nako ko ministre bi deugal ko euh, gatcha ngalama ci sa taxaway ci walu éducation nekato ku ñuy présenter ci éducation ministre wax nako légui li ci dess rek moy génération yi nga xamni ño ci ño ci top roy ci sa yow ci yor ci yow ndax gis nañ sa jaar-jaar ci film bi euh, nga nek une référence pour le la la communauté éducative kon bok Sénégal yëpp jàngalekat yëpp ñu ngi lay sargal di la ñaanal fan wu gudd di la ñaanal aussi nga gën a continuer taxaw ci wetu kat yi ak ci njàng mi li ci des rek mooy ministre wax na ko ah, gouvernement du Sénégal jëf ay jéego yu bëri ci wàllu jëm ci njàng mi mais jàpp nañ ne njàng mi comme niñ ko waxee saa su ne kat kenn mënu ko fay loolu moo tax état du Sénégal jël ay mesures monsieur le ministre rappelé na ko léegi bi ma ciy tënk rek mooy démb ñu fas yéene delloosiwaat ak waxtaan ak syndicat yi nga xam ni ñoo gën a ëpp doole ci syndicat yi ci wàllu jàngalekat yi. gouvernement bi taxaw fa démb ak juróom-benn ministre suñu collègue Mariama Sarr président de la République décidé désigné ko pour mu jiite waxtaan woowu ñuy ñaan waxtaan woowu yëpp jur jàmm parce que ci jàmm la ñu mën un système éducatif bu am solo parce que luñ mën wax rek suñu système éducatif référence la tay ci ci aduna bi jafé jafé nak du ñak waye japp nañ né suñu waxtané communiquer parce que aussi bien le, le gouvernement que les syndicats les partenaires sociaux la société civile ñun ñëpp ben yitté la ñu am mooy système éducatif bi te mënuñu ko tabax gannaaw dal ak jamm ñu ñaan yalla waxtaan bobu monitoring bobu suñu borom def ci jamm mu nekk njëriñ ci ci système éducatif bi